noo tudd Mouna moom moo fi indi ci li nga xam ne moo nekk diggante Gambie ak Sénégal mooy dégg nga lu doon yàgg a yàgg a yàgg na tey dañ koy firndeel rek mais waa Gambie dañ daan ñëw Dakar waa Sénégal fekki leen Gambie mu doonoon loo xam ni dégg nga ci la xamante ba tey jii ñi nga xam ni ñoo yore woon ñoo doon daw ci Gambie boobu yore léegi fi mu nekk njiitu euh, fédération Gambie dégg nga fekk suñu te jii ñun ñoo ànd dégg nga di liggéey loolu waaw euh, wax lu ama am solo nga ne Sénégal ak Gambie seen relationship nekkut tey maanaam euh, dafa nekk loo xam ne dañ koy gën a dooleel rek waaye lu yàgg la euh, soo ñuy wax lu yàgg la noo gisee woon relationship bi Sénégal Gambie démb. xool nga relation bi lu yàlla def la ba pare. ndax su fekkee ni da jël carte Sénégal dégg nga nga dessiné ko dégg nga ngi mel ni gaynde gu toog. dégg geen gi ci legam bi nekk nga xam ne loolu lu yàlla def na dégg maam yi nag daan demalante di dikkalante soo seetee ni euh, colonisation bi moo tax ñii di làkk anglais ñii di làkk français dégg mais am na benn làkk boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk muy wolof waaw mooy bi ñuy wax mhm. dégg nga nga xam ne kon dégg nga kenn mënuñu texale benn lañu mhm. waaw Euh, am na ay jamono yoo xam ne Sénégal Gambie seen i relationship maanaam baaxutoon euh, maanaam yàqu woon na maanaam ñagas na euh, maanaam nekk na loo xam ne Gambien yi si ñuy ñëw Sénégal sax ñu ngi koy xalaat Sénégalais yi si ñuy ñëw Gambie tamit ñu ngi koy xalaat noo gisee woon relationship yooyu. nga loo gis ci àddina rek balaa moo baax jafe amoon na jafe-jafe est-ce que jafe-jafe boobu léegi am na xam nga loolu dañ na.

dégg nga Ndiaye itam ah Seck ah, kon nga xam ni dégg benn xeet. Euh, ki nga xam ne mooy woon président bi ñun suñu président bi Yaya Jammeh euh, su ñu doon wax ci Yaya Jammeh noo ko gisee woon. bon xam nga njiit yàlla moo koy fal mais su ko jeexalee mu jeex. nit kii toog fi nga xam ni dégg nga mooy njiit su defee ci boppam que ni dina ni mu fi toogee noonu la fi jóge dégg kon nga xam ni benn nu mu war mën a tooge toogin bu rafet lay doon dégg nga ah yàlla moo def moo moom mii njiit dégg nga xalaat boobu jox ko. ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom di liggéey ñu tasaare ko ci réew mi kon Sénégal ak Gambie munul yàqu bu xel xalaat sax ni dina yàqu waaw. Euh, jamono jii nag ñu nga xam ne mooy euh, Macky Sall ak ki nga xam ne ñooy mooy Adama Barrow euh, ñu ngi am relationship boo xam ne ñëpp a ngi koy waxante mu nekk relationship boo xam ne. bu nooy la nekk relation ci daanaka presque ay morom maggantewul ñu lu mais soo xoolee ñaar fukki at ci kanam kuñ la ñu woon kii dina nekk njiitu réew kii nekk njiitu réew doo ko gëm. mais fekk na loo xam ne suñu boroom dégg nga dogal na ko daf ko dogal ba pare nag kon nga xam ni dégg nga ci nekk ci ñoom nag war na mën xoolaat loolu dellu ginnaaw seet ni askan yi leen dénk dégg nga ay askanu suñu boroom lañu dañu war a mën a nga jàppale askan boobu dégg nga relation yi ñoom seen relation baax na dégg nga fekk na li ma waxoon ci njëlbeen dégg mooy ay mbokk luñu kenn mënuñu tasaare dégg relation bu baax moo am seen diggante. Euh, jamono ji nag ñu am li nga xam ne mooy Sénégal bi ren fa indi muy marathon euh, loo gisee marathon xam nga lu ñu feddali la rek ndax maa ngi lay wax ci ñi sànq nii Gambie Sénégal dañ daan demaleen Euh, ak euh, naka la tuddati ku jigéen gi sax dégg ñoom ñëpp dégg dañ daan ñëw Dakar mu doon seen kër ñun ñuy dem Gambie mu doon suñu kër waaw marathon bi nag day feddali rek li nga xam ni dégg nga moo amoon démb dégg nga te am nañ ci yaakaar que ni dégg nga marathon bi su jógee dinañu xoolaat suñu taxawaay ñaari dëkk yi. dinañu xoolaat seen taxawaay dégg nga nan la ñuy defee échange dégg nga ci sport bi. Euh, amu leen euh, jafe-jafe du ñàkk dégg nga mais ndaxte ñun a ah, lii mooy suñu wareef dégg nga ak lu mu metti metti metti dégg nga dinañ ko dékku dégg nga fexe ba mu baax. loolu mooy suñu taxawaay ñun officiel technique xanaa di ñaan suñu boroom rekk mu def taw féex ci ñaari def ko ci xale yi nga xam ni dégg ah ñooy seen moroom yéen ak ñi leen gën a ndaw ba li nga xam ni moom mooy dégg nga relation bi am ci mag ñi dégg nga fekk si leen te ñu gën ko mënoo toxal dégg nga ci rafetaay waaye di leen ñaanal nag dégg ñaari relation ñaari dëkk yi dégg suñu borom def taw féex lépp lu ñu soxla dégg nga suñu borom bi yombalal leen ko dégg relation bi continué. amin yaa rabin askan bi eh, lii laa leen indil eh, seen mbokk seen xarit eh, Fatou Samba dama leen koy wax saa su ne jinax day bëri ba xamus day a wax ñeew fii la moo amee fii si kaw la ñu ñëw di leen indil lu leen kenn indiloon dama leen koy wax rek yéen nga xam ne yéen nekk bitim réew sometimes mu nekk place boo xam ne nag dañuy nekk si sedda bi di ut xaalis foog rek nga seetaan li nga xam ne moo xew si suñu dëkk di Gambia kon nag tey nag Gambie foog rek ñu nit ah, suñu ay mbokk yéen ñi nga xam ne da ngeen a ah, nekk foofu bitim réew soo leen ñëwee Gambie da ngeen a ñëw Sénégal ma indil leen lu leen kenn a indiloon kon nag dina naa seetaan ñu nekk seen i bët seen i nopp ah, nekk tamit seen tànk ci si jàmm rek la muy nekk di jaajëfal ki nga xam ne mooy suñu oncle di Tidjane Massaly Cissé di ko wax ne nag yëpp moom la moo tax tey ñuy ñëw fi nga xam ne nag mooy Sénégal jamono ji nag ñu ngi fi nga xam ne mooy Kaolack si kanam tuuti rek dinañ dem fi nga xam ne mooy Mbour ak di leen dem fi nga xam ne nag mooy Dakar di capital city of Sénégal ah, kon nag ah, mbokk yi fii lay em ak yéen ba si kanam incha allah dinaa leen indil yeneen nga xam ne ken indilu leen ko taxaw leen rek ma def seen